gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi tey li ñu fi indi woon tey mooy à chaque fois suñu activité sociale yi nga xam ne moom la ñuy def à chaque fois lépp loo xam ne ni à chaque fois Kaolack bu ko soxlaa euh, ñu mën a taxaw pour euh, pour indi suñu ndimbal waaw parce que nag. Euh,

manam aussi tamit dem nangan aussi aussi ak Medina ak Sam amna kilifa dina yo xamne jox nañ len xar lolou dem na ay enveloppe lañ def jox len ko lolou suñu participation lañ ci ñun parce que nak aussi tamit euh, bo nekké ci gox manam ñoom tamit ci lañ bok ndax ñun bu nekké ci école yi di jang français ñoom dañoo nekkal tamit ci daara ji tay nak kenn mënu lepp ci aduna kenn mënu lepp aduna képp ko gisé dañ manam dañ ko dimbale bam dem may wax né aussi tamit manam ñun amuñ kenn ko xamné nekk na suñu gannaaw ñun kenn nekkul suñu gannaaw du ñu financé man ñun dañuy liggéey kenn ku si nekk masam bu amee dërëmum indi ma dem bu amee ñaar dërëmum indi dañuy liggéey allo amuñu leader ñun Kaolack mooy sunu leader dama bëgg mu leer parce que nag wax ji muy commencé bari amuñu leader ñun Kaolack mooy suñu leader képp ku ñu gis nga bëgg Kaolack fonk Kaolack di dimbale waa Kaolack ñu danañ taxaw ànd ak yow mais nag diñ ñu fekk man ñun mais nag ñun ci yoon wi nga ñuy fekk mais amuñu leader ñun lépp lu ñuy def suñu poste lay jugee ñun. jugewul ci posuma Samba jugewul ci posuma Demba mouvement bi bañ ko bañ maanaam bañ ko taxaw léegi léegi moy que nit nak bo nekkee ci benn mbir di doxal chaque jour mi gën di yok chaque jour aussi tamit ngay gëna gis ay engagement yu bess faaw nag nga manam manam nga ñak sa bop faaw aussi tamit nga am taxaway parce que lepp lo manam lepp lo amul taxaway amul aussi tamit structure manam structure wuñ ko du dem moo tax na ñu taxaw ñun ñi nga xam ne ñun ñoo bokk benn pas-pas ñoo bokk benn gëm-gëm ñu taxaw ne carrément l' heure du réveil à sonné ambition politique la ñu am man suis candidat à la mairie bu ma xam jotee dinaa dinañ taxaw wax ko kenn ëpp ñu fi doole bu caaxaan jeexee kenn ëpp ñu moyen ñu ñuy tudd ay soi-disant milliardaire lu ñu def benn man mun naa ko def fukk wallahi alazim dëkk ci koñ bi di sëy ci koñ bi xale yi di samay xale ma jur leen ñu yaayoo ma bëgg ma safoo ma faale ma papi mii fii ma taxaw ak moom du tey rek yàgg na démb la te fàttewu ci dara yàqu ci dara may ñaanal papi mii ak ñu mu àndal yal na jëm kanam lépp lu mu riggee ren bu déwénee yal na ko mën ndax papi lekkul dara bàyyi koñ bi demul bàyyi koñ bi daaw fii la daaw jéeg fii la ren fii la kon nag bu déwénee it fii la yal na ko yàlla may jàmm may ko sutura may ko teraanga ndax defu ko ci kenn rek ndax bu ko doon def ci kenn ci ndeyam la koy def wala ci maamam wala ci mbokkam waaye nag ñëpp la boole xam nga ki boole ñëpp bàyyiwul kenn papi bàyyiwul kenn yal na ko yàlla borom Tuuba defal jàmm ak xéewal doom bu am njariñ la te doom bu am njariñ nag moom ñëpp a koy bok waaye boo amul njariñ moom man bu ma la rombee damay jàll sama morom bu jàll waaye papi kenn du romb jàll ñëppay taxaw papi yal na nga gudd fan mouvement bi nak ñu lancé tout récemment parce que bon semaine passée nous ko lancé yagout donc composé d'universitaires des professeurs des ingénieurs bon des intellectuels quand même tout ça c'est le réveil comme le président l'a dit donc euh, il est l'heure a sonner pour la population plus particulièrement les jeunes donc il ne faut plus être l'agneau du sacrifice tok rek yow ñu lay sacrifier tout un chacun doit se réveiller bi la Kaolak auparavant défendait la deuxième ville du Sénégal Kaolak il est complètement laissé en rade à cause de quoi de mauvais dirigeants qu'on le dise donc l'insalubrité occupe problème d'éclairage tu vois le manque de le manque de travail chômage jeune boo fi gis légui ay jakarta kese lay yor politiciens yi di nax comme li président donc l'on lañ ne dañ koy en tant que jeunes.